fukk yoo xam ne ku bëgg fukk da koy def maanaam ku bëgg fukk defal fukk ku bëgg fukk defal fukk maanaam ku bëgg fukk defal fukk mooy bi njëkk turadul sixata képp ko xam ne da nga bëgg wér alek bi siyaam nee na képp koo xam ne da nga bëgg wér euh, del or boo dee boo dee dana la defal ak wér turadul nuurul wàcc képp ko am bëgg leer sa kanam saxar kanam leer fii si àdduna ak euh, ëllëg yowmal xiyaam mu ne alayka bi xiyaamatu leyli euh, alayka bi xiyaamu leyli nee na na ngay julli guddi soo bëggee saxar kanam leer fii ci àdduna ak fële ci àllaaxira euh, del julli guddi waaw del julli guddi ñetteel bi turidu istax istar xaay képp ku bëgg noflaay maanaam koo xam ne da ngay bëgg maanaam noflaay goo xam ne eh, noppalu ko daal mu ne alayka bi tartari quran képp koo xam ne bëgg nga noflaay mu ne del jàng alquran te di ko settantal alayka bi tartiral quran waaw ñetteel bi ñeenteel bi turidu saxaada képp koo xam ne da bëgg ak texe texe mooy réussite euh, aleyka bi salaati bi waxti xë del julli euh, julli farata yi te koy julli ci waxtu yi mu ne turidu tamaaniyatu képp ku bëgg daluk xol waaw moom la di wax sakina sa xol dal sa dund tey mu ne aksaru min zikrillah del bëril di tudd yàlla suñu borom subhanahu wa taala turidul maal wal banuuna képp koo xam ne bëgg nga suñu borom may la alal ak ay doom laazimul istighfar na nga taxoo wax astaghfirullah foo toll turidu zawal xam képp ko bëgg njàqare den ci yow laazimu na nga di ñaan yàlla jamono bu nekk képp ko xam ne nga bëgg njàqare dañ ci yow di ñaan lu bëri rek incha allah soo ko def dina deñ turu zawal shidda képp koo xam ne bëgg nga tartar ci ne sa kaw deñ tartaru àdduna maanaam xet tartar yëpp rek maanaam lu dëgër daal lu tar lu dëgër mu ne xul laa xawla wala xawata illaa billaa wax laa xawla wala xawata illaa billaa soo ko dee faral di def lu bari tartar bu nek ci yow dana day turdul baraka képp ko xamne ne bëgg nga barke barke nag moom tax nit ki euh lumu am mu sakkan lumu jur mu jariñ lumu nek nekk di jariñ euh, bari na dal barké ci lepp rek da nga nit rek ci soxla salla salla ala nabi da ngay julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne turidul xasanaat euh, fukkeel bi fukkeel bi turidul xasanaat képp ku bëgg ay yiw képp ko am nga bëri nga bëgg ay yiw mu ne atbaaha wa zaraaha na nga yaatal yiw bi na nga topp maanaam euh, aw yiw te yaatal ko lépp lu ñu yiw la rek na nga ci nekk te fexe yaatal loolu kon fukk yaa ngi noonu ay ndénkaane la luy jariñ jullit bi lu jariñ doomu aadama bi di leen yee ubbi di leen dimbali eh, kon loolu lañ ci jublu lépp lu am njariñ rek ñu bokk ak yéen incha allahu taala di leen salaam wa rahmatulah taala wa barakaatu ñëw mu faj aajaati